te la mu wax a gën a rëy dafa dëgg na ëpp na sax xamal lu mu wax wax nañ ko fi dem daane soxna Fall. Mhm. Jean Bernard Fortia. mu ni un médecin réputé. Uh-huh. dans le monde. Mm. moom li mu wax gën a yéeme lu tax lu tax personne n'en parle lu tax kenn du ci wax lu tax kenn du ci débattre. lu tax lu tax les médias ne parlent pas de saa dafa ne institut Pasteur moo créé virus bi. Mhm. loo gën a rëy. waaw loolu moom. loolu moo gën a rëy loo gis ci àdduna. ci léegi lu tax. xaw ma ndax c'est avéré ou pas daf ko wax waa léegi ba mu ko waxee lan na ko jural dañu ko jël yóbbu ko hôpital psychiatrique ñi daalof waa léegi <laughs> dañuy wax benn affaire tey fi Sénégal toll parce que xam nga ma mhm. micro baa ngay tontu di seede <laughs> fi Sénégal toll damay wax benn affaire ah. Clédor Sène mu ngi wax waxi toliyam bër ci démb mhm. loo xam ni avantage u Sénégal la ci wàllu nucléaire ñun xaajaguñu jege nu jege nuyoog nucléaire ndeke yàlla defal nañu lu ñu mel ci suñu ay suuf. ak la ca des yépp yéen ngeen yaakaar ni ñun Sénégal gars yi dañuy xool ñu war a dund normal ñu naan 2024 pétrole bi dina ball way dina dox ak leneen ngeen yaakaar ni loolu dafay am tout ce qui se passe est en relation avec nos ressources. Mm-hmm. su fekkee ni nit ñi nag dañoo préférer liñ ñoo jox. ba Youssou di way les xaw les waxul 92 la. bu fekkee dañoo nara a tënku nag ci bu ñu joxee ne nañ ci ñëpp tënku. Hmm. passe sanitaire ñu ngi kaa validé fële ca France tubaab yaa ngaa lànk ñu ngi kaa forcé si jógee OMS woon Afrique tey ngeen dee yàlla lànk. Hmm. ñu ngi ci seen processus. aujourd'hui qu'est-ce qui se passe Afrique de l'Ouest Sénégal rek la ñuy wax ni ñooy am autant de morts. le Nigéria est à plus de 200 millions d'habitants. Très war a mën a proportionnel ak ñun ci wàllu ñàkk yi ñu ñàkk ci seen bakken très la xaw lañ nu waxul la vérité est ici. ayca mi ngi noonu dañu ko war a wax hmm? Oustaz Diaga euh, Madiambal euh, nit ñaa ngi naan wax na piir man pour man euh, ndey ji seex da nga war a tëddee jaaxanaay te hmm. réew moom ak ndey ji seex ñoo bokk benn cër bu fekkee dañuy attee bu ñu utiliser des propos ou des des, des opportunités pour euh, anéantir nit buñ ko def mais bu fekkee ni tamit voilà il faut savoir équilibrer la chose maintenant bu fekkee ni tamit am na kuréel bàyyeesan bu lee représenté yaakaar naa ni balaa ngay euh, génn di wax sax nag naam nga wax ak ñoom bu ñu weddee nag xëy na naam nga def sa lettre de démission génn ci corps boobu bu ko defee secret professionnel du la tënk euh, le bu boobaa nga mën a défendre sa askan lépp am yoon te yoon jaar bu ko defee dañuy tegu ci yoon quand un peuple est en danger duma la may quand un peuple est en danger il faut le dire au peuple il faut arrêter de corporation corporation baa ngi nii taxaw ne àndul ak moom il faut dire la réalité aux gens c'est une interview tu es en face de la presse on te pose des questions techniques tu es médecin tu réponds selon bi ngay ñëw la woowoon fenn bi ñëw di nga xam a peu près lan ngay waxtaane mhm. lan nga fay fekki kon nag li nga ci namm wax rek ngay wax du dëgg dama ne li mu def naa kenn terewu ko ko def de. mais dafa am yu ab yoon boo xamante ni war na cee jaar ba tax ne kenn du ko tënk wala kenn du ko teg daan foofu noonu da protéger sa bopp laata. ngay wax mais liñ koy tegee daan euh, moo ma dikk ma dikk euh, ci euh, oustaz léegi man dama ci am jàngat bu xaw a gàtt. Mm-hmm. mooy que ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne. wiqaa'u xayrun min ilaaj fegu gën faju benn ngoog. yàlla ne bu leen rey seen bopp. Mm-hmm. kon nit wër sàkkul ko rey. Mm-hmm. ñaareel ba Seydou Guèye donc kaddu président la wéree. ah yow. waaw warul woon déplacé dem ci benn benn benn média. Mhm. daa waroon toog à la présidence wala tous les presse. wax lay wax ci turu président de la xam nga seen erreur mooy seen communication. dëgg la moo tax kenn yematu leen. Mhm. jërëjëf waaw mais il n'est plus le porte-parole. c'est Oumar Gueye le porte-parole du gouvernement quand même. justement en tout cas daal mbir mi buñ ci buñ ci tënk qui que ce soit. Ah, y a une chose bu ñu bëggee nag dem ci docteur Samba Ndiaye. Euh, ñi nga xamante ni vaccin gi la ñu wóolu nañu vacciné wu passe sanitaire duñ ko nangu parce que le vaccin n'est pas une obligation te bu ñu tegee passe sanitaire rek dafay mel ni. dañu tënk ci euh, obligation. te ñun Sénégal bokk duñu ko nangu mi ngi noonu. y a y a une chose y a bu ma bëgg a les assertions des uns et des autres. ni ñuy nangoo information bi ñu jox. Mm-hmm. ne ñu dem leen ngeen dafi test. loolu la ñu war a nangoo ku ciy dute ak ku ciy am beneen xalaat. la dictature mu ngi commencer sur le refus de la capacité à pouvoir dire non. Mm très bien mi ngi noonu ay Aïcha kon ñu jaajëfal ko moom Baye Assane Seck ñi nga xamante ni daal mën nañu faggu ci vaccin gi nañu vacciné wu ji kenn musul dingat vaccin gi fii dañuy càmbar ay mbir daal di samp moi une chose quand un vaccin ne prévient pas ne me permet pas de me prémunir su ma ko vacciné woo dinaa wàlle dinaa takk masque du tere dinaa amaat corona du tere dinaa am cas problème la sañ yow la concerné. sañ naa la am na koo xamante ni nag loolu concerné wu ko da nga bàyyi tamit ak xalaatam. ak mais on l'accepte merci beaucoup a problème merci beaucoup voilà. merci beaucoup <laughs> Aïcha chronique bi jeex na nag merci. ak kay jërëjëf <laughs> Aïcha mi ngi noonu ñu dugg nag ci <laughs> Baye Ousmane daal di dem ci proverbe wolof yi lee kon nag suñu yëfi boobu foofu am na jàmm ndaxte mm. maam yi jàmm lañ fi bàyyi. Ah. te dañuy ñaan yàlla bu sax dàkk merci. <laughs> Aïcha mi ngi noonu lan nga ñu hmm. indil tey ci proverbe bi. waaw Asma. Hmm? daa nga dégg émission tey mu neex. waaw. waaw daawul neex tey rek lay neex. dëgg la. <laughs> waaw. émission tey mu neex daawul neex tey rek lay neex. ku uh-huh. saas. Uh-huh. ku sàcc mbaamu law bi jaay koy géwél bu feeñee lu mu gàtt gàtt ñett fanu coow am ci. Ah, mënut ku sàcc mbaamu law bi jaay koy géwél. Mm. gàtt gàtt ñett fanu coow am ci. mu mbir mi nag li mu doon sama affaire. Mm. sax ba maa ngi leen bàyyi ngeen wax rek. Mm. <laughs> añ dafa jot. ñu toog di añ. soxna si ne pa jëkkër ji mbindaan mi dafa ëmb. mu ne ko affaire am la. <laughs> mu ne ko dégg naa yaa ko ëmbal mu ne ko loolu sama affaire la. Ah. mu ne ko boo ko ëmbalee man damay fay ñibbi mu ne ko loolu sa affaire la. ñetti affaire la waaw sànq doon na affaire soxna Fall. ba caag mu doon affaire Pape Assane muy wër ba caag mu nekk affaire Baye Ousmane. dëgg la sa affaire la. te dëgg rek ko wóor. dëgg la. dëgg rek ko wóor. Mhm. sama doomu nijaay Fat Sarr. Mhm. madame Sassura. Mhm. dafa dem ci docteur Senghor mu jaay ko sirop. ne ko suro bi da nga ciy naan kuddu suba kuddu ngoon kudd guddi mu ne ko sama kër génn kudd dafa am mm. xaar mu dem marché wutaat yeneen ñaari kuddu mm. muy ñett dafa déggul mm. Ah. benn kudd bi mooy naan ñett na ko kudd suba kudd ngoon kudd guddi mu ne ko xaar ma dem marché wutaat yeneen ñaari kudd muy ñetti kudd mm-hmm. dégg rek ko dafa dafa déggul mm-hmm. tey fi may ñëw moo di proverbe bi may ñëw xam nga keroog indi naa la layoo bi jeeg mm-hmm. tey layoo bi jeeg Euh, weesu nañ ko ajuma bi passé la. Mhm. tey maa ngi lay indil sous-vêtement buy diir mbagg garambu bu deux heures a jot. mu ni sous-vêtement sous-vêtement hmm. buy diir mbagg garambu bu. Ah. deux heures a jot. loolu lu muy firi. ban deux heures ci bëccëg wala ci guddi. guddi deux heures quatorze heures a jot. quatorze heures yor loor da koy sumi sous-vêtement buy diir mbagg garambu bu quatorze heures a jot. Ah. waaye bu xaaji guddi jotee ñu xam ne garambu bay waaja. nga ne. sous-vêtement am bëri nay bën bën amul loxo. ba baat ba ba yaatu na ci ndigg la yam quatorze heures lay bàkku njolloor seen kër mu fatu ji garambu bay waaja hmm. des médias mooy garambu bu dëgg la seen TV. Hmm. TV la sant. waaw télé yëpp sant TV TV gi nag moo leen boole. dëgg la. télé FM lañ sant Zik FM. rajo FM gee leen boole rajo yi. Hmm. waaye sous buy diir mbagg.